ca tout droit fii ci Djilass ah. waaw sama gars yi mbokk Sénégal wala mbokk mbéku képp ku ñuy seetaan rek te ne dañoo ñëwoon fii Djilass rawatina sama dëkk seeti champion bu mag champion ndaanaan kulli fadri ñu gën koo xam ci turu Ibou Khady Sène wala Ibou Khady waaw Ibou Sène le grand statique de grand mara un grand salmakoor waaw lu waral suñu teewaay fii nag nekkul hasard parce que ñu ngi gis temps yëpp ci réseaux sociaux yi muy YouTube TikTok Facebook ay vidéom di circuler gars yi di laajte kii kan la kii kan la kii kan la gars yi di ko laajte waaw Fra mu ngi sonné di laajte kii kan la kii la moo tax nag ñi koy laajte wala ñi ko bëgg a xam bu soobee la incha allah di ngeen ko xam tey tey tey mais avant tout balaa ñoo xuus ci waxtaan bi. Ibu ñu ngi lay nuyoo di la ziar. maa ngi lay delloo ziar bu wér la jox sa wàccuwaay. di ziare mbokk jilaas ak li ko wor di ziar la ziarale yow yow mi tam wax dëgg fa yàlla kontaan naa si émission bi mhm. lii moom wax dëgg yàgg nga ma ko wax mhm. man maa new na kon koo xam ne du ma toog rek mhm. yi tey ñoo bari wax dëgg yàgg nga ma ko wax xëy na yàlla tey la ko dogal aussi ku bëgg a xam Ibou aussi tey di ko xam am na ñu ma xam sax mais pour ñu gën a xam tey lay leer waa di ziar Ousmane Ndiaye di ziar Pierre Diom Jili sama mag ñooñu moom wax dëgg yaakaar naa Ousmane Ndiaye moom ak Pierre moom xam nga leen. waaw foo ma gis gis mhm, nga sama rak mi toog mu Abdou. Mhm. di sama papa di sama yaar di ziare mbokk yi ñëpp daal. Mhm. kontaan naa aussi si émission bi bu baax. Ah. téléphone nag wala garaawul. garaawul client la. waaw léegi xam naa ci biir loolu ba pare. Ibou ñu gis ne presque ñu ñoo nekkandoo ay xale gilaas yaa ñu mag rawatina ñu mag ay mais ñun ñoo defandoo en face bi fii Djilass yàgg nañ laa xam nag avant ngay lal ci lii mais Ibou lan moo ko xiir rek bu jékki-jékki dugg si lii. Mm-hmm. mbay question boobu nga ma laaj wax dëgg nekk na question boo xam neex na ma mm-hmm. si dinaa ci sawar a wax mm-hmm. ndax ñu ñu bari ñu ngi ma koy laaj nga na moom tey laa koy leeral loo gis rek si suñu borom lay jógee waaw affaire moom yàgg na ma topp ñu ma nekk xale ba léegi li yàgg na ma topp mais ko doon daw mais affaire bu mu demee ba xam ne sonal na ma wasanal na mhm. sama papa ci la ma woo. Mhm. ñu waxtaan lu bari. Mhm. waxtaanu famille waxtaanu secret. ma ne ko loolu est ce que loolu jot na pour ma def ko mu ne ma def ko man la ko wax. parce que ci la ma yebal nga paru foofu la njëkk a defee ma nekkee nga paru aussi nit ñi dañ ko doon miim waa dëkk bi. ñii dañ doon wax Ibou day sëriñ ñii daal daal. foofu laa nekk ba xam ne taxawaay bi dëgër na. ne ma ñibbisil ci laa ñibbi si Djilass nag samp. Mhm. Uh-huh. mais i ci biir loolu nee nga sa papa moo la yebal mais affaire bi affaire u ndonoo la wala lu la sol la wala. waaw affaire bi moom mbay. Mhm. ñaar da ci nekk. Mhm. bi dama ko doon. dama ko doon ci yaay doon ko ci baay. mais aussi ak mayu yàlla. am na am na loo xam ne moom wax dëgg dama ko judduwaale. loolu moom leer na ma. waaw affaire bi moom nekkul loo xam ne. man mhm. da ngaa damaa lekk ba suur rek wala ma bëgg xaalis ñëw def ko. Mhm. li ma la mën a leeral daal xiif daal dugalu ma ci sëriñ. Mhm. xiif dugalu ma ci sëriñ. ok waaw. léegi affaire bi dal la nga dem nga Ngaparou di ko dóoree foofu. nga jékki-jékki ñibbi si Djilass. la moo la jëlee Ngaparou nga ñëw samp fi nga dëkk. waaw loolu paa bi la paa bi moo jékki-jékki woo ma. ne ma kër gi am na lu fi feeñ. mu ne ko lan mu ne ma guy gis guy sax na fi. ak yeneen yeneen garab. mu ne la guy sax na fi. waaw mhm. ak poftan yi. Mhm. ak affaire yooyu da ngay ñëw nga sampu fii. Mhm. di indi indi yi tuuru yi maa ngi koy jëyee ba joyin. joyin foofu mooy suñu cosaan. sama dëkku mu am. joyin boo demee foofu boo waxee ke ñoom euh, Aliou sen wala Waagaan Sène. nan la wax kër kër gu mag. boo ko wax joyin rek nan la ko wax. nan nan la wax kenn aussi si dem bu nekk foofu si dem bu mag bi ñoo koy tuuru. léegi suma papa yi papa yi dem jëli affaire yi ñëw sampal ma. Mhm. may tuuru di liggéey waale. ok uh-huh. wax ci biir loolu tamit bi nga demee ba jàpp ne yow mi pare nga pour liggéey xam nga nit booy liggéey peut-être am na loo xam ne ci ngay gën a yëngu wala am na loo xam ne moom mooy sa fort parce que tey clients yi dañuy jóg dem ci kenn wala dem ci nit ne ko lii laa bëgg nga liggéeyal ma to du leen woon ndax kii ci lii lay yëngu wala ci lee lay yëngu mais tey Ibou client bu yor sa numéro bu la woowee tey mm. avant muy déplacé wu est-ce que nekkul euh, lu gën a logique nga nga nga xamal ko carrément boo xamee soxlam ba pare nga xam nga xool ndax yow lu mu soxla bokk na ci sa liggéey ou pas. Mm-hmm. parce que comme que yéen ay li ngeen di liggéey peut-être dañ leen di jox mais yow est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci sa euh, favori ci li ngay liggéey. waaw Mbaye li ngay wax noonu moom. Mm-hmm. dinaa ci sawar a tontu. Mm-hmm. sama liggéey moom. aw ma ci favori de lépp laa yemale. lépp nga yemale. waaw hmm. mais aussi am na foo xam ne boo fa bëggee dugg. Mhm. amaana dinaa ko mun sax mais dama koy bañ. muy loo wàll loo xam ne yalla bëgg ko. comme loo xam ne ëllëg mhm. yow ma la si am da lay indi leneen. comme bëggoo liggéey nit. waaw koy yàq nit. waaw nga dëggale nit ak nit. Mhm. wala nga dem foo xam ne naka sut noonu man du ma dugg ci yooyu. ok man daal sama liggéey lu ma may. ci laa yem. ok nit ñu di ma xaalis bu weex tal liggéeyal ma li liggéeyal ma wax def yàlla. yàlla kese moo tax may wax. comme par exemple yenn saa yi nit ñëw ne damaa bëgg nga jàppal ma nit. wala pour nga def liggéey bu bon ci kaw bu dee affaire bu nit sax. Mhm. dañ dañ ci liggéey ndax dafa bari ay façon. Mhm. ndax nit day jóge fal ne dama bëgg a tak boy fal dama ko bëgg soxna affaire yooyu. waaw bu ma leeree kii li muy wax du caaxaan ci moom. Mhm. te li muy wax nekk na ci moom. man dinaa ko liggéeyal. su fekkee bëgg su fekkee bëgg na ko soxna. bu nekk bëgg na ko soxna. waaw yow moom affaire jóge moom yaakaar naa xam nga ma ci. tuune wu ma ci waaw

mais mais mais mais clients yi ñooy woote wala nu mu fa demee. ñooy woote ñoo pare rek xam nga dinañ woote waat. waaw bi balaa ñuy xuus tamit dangay sa numéro. ki yàlla appel bi. 78. ki ki yàlla appel bi. da dangay waxaale sa numéro 78. 104. 104. allah après dinañ kii numéro bi. mooy li ma wax rek sama papa mhm. daf maa wax lu bari sama liggéey bi. Mhm. daf maa ne Ibou. Mhm. ku ñëw liggéeyal ko te yàlla tax. mais amaana sa nit tollu fale nga ko ne. temps nga may jox te ñëwagut. waaw kooku day découragé. Mhm. papa ne ma ne lii ngay nekk di nga ci jaamu yàlla. Mhm. xale nga xamoo lan moo tax nga def ko. Mhm. di nga ci am yar ak tegin ak sutura. ndax lépp sutura moo ko am. ñu nekkul sëriñ da ngay dox si mbedd yi dem ci garan place yi. fu xew am nga dem fa. nit da ngay maandu toog sa kër nit ñi la foofu nga am fula ak fayda ci li ngay liggéey. man loolu lañ ma yare ci loolu laa nekk aussi ci loolu laay deewaale. ci loolu ngay yëngu lu ma mënul aussi duma ci dugg. xaalis bi li mu bari na naa la wax li mënu ma ko mais lu ma la wax mun naa ko moom mhm. buñ bu ci liggéey moom bu soobee yàlla balaa ñu am une semaine di nga gis résultat moom mooy yàlla la mi mi waaw client yi moom client yi moom xam naa dinañu xaw a yàq suñu émission bi ah. xaw ma da ngay def portable vibre xaw ma mais nu mu tuddate parce que temps yi ci TikTok bi dafa am ay vidéo yu ñu gis ñuy circuler hmm. nga tiim doomu jàmbur di ko dóor ay fetel wala ñu gis la ngay ngay jël ay paaka wala ay jaasi di ci dagg ay nit te du dugg. waaw loolu la fa demee. <laughs> waaw mbay loolu parce que loolu man sax loolu man ku ma joxoon au milliard sax. nii nii ni boo bëggee sax ñu commencé kon léegi gaa yi gis. nek mm-hmm. nekk loo xam ne doon la ci kër gi. Mm-hmm. ku xam Aliou Sène. Mm-hmm. xam fetal nga ko xamee. sa papa waaw. fetal nga ko xamee ak paak ak jaasi. li may wax fen xëjul sa télé. li li ñu vidéo nii àdduna yëpp dañ ko dégg. boo ko ko dégg xam ne booy bi li am na. sama papa ñëpp xam nañ ko. ci fetel mhm. sama papa nii mu boo nii mu nii mu nii mu nekk nii fetel du takk si wetam. maanaam fetel du takk si wetam. déedéet boo nii mu lu ma jox lu bari loo xam ne. Mhm. bugg ma ci eggagum. waaw yoonu ndaw du gaaw nañuy def mhm. ndànk ndànk rek. waaw adduna jëloo yàkkamte. mais bu dee paak ak jaasi booy bi sax boo ko joxee paak ak jaasi léegi léegi mu def si lu mu war. booy bi gën a tuuti. xam naa loolu nañ ñu image boobu. waaw booy yi gën a tuuti si kër gi dañoo tul man kay gis naa benn vidéo ngeen jël xale bu daw. boo yu gën a tuuti si kër dañoo ko loolu moom waaw fetal dañ ko doon. Hmm. loolu moom xam nga ko dañ ko doon. kon tey ni su ñëwoon nii pour nga defal ko tullu fetal wala tullu paaka ay jaas yi loolu da nga koy def. loolu lu yomb la ci man balaa ngay dem da ngay essayer door a yóbbu. da ngay essayer soog a soog a fetal bi moom xaw naa ko xaw naa ko bàyyi. Hmm. ndax bi wax na ci lu bari. Hmm. mun nga dëkk bi dafa nekk dëkk bu mag. te aussi boo nekkee xale. di war a député da ngay sóoraale yu bari. waaw parce que da ngay wara lu bëri da ngay bañ lu bëri mhm. man kese nekkuma ci dëkk bi mhm. am na ñu ma ci jiitu mhm. mais amaana boo waxee jilaas moom dëkku cosaan la waaw jilaas moom ñëpp xam nañ ko waaw presque ku jaaxale bu jaaxale bi métti jilaas ngay daw si loolu moom yàlla def na ko jilaas te boo ñëwee sa aajo day soobee yàlla waaw loolu la mais Ibou liggéey bi don lu compliqué ci yow wala lu metti ci yow ou bien yow lu la jaaxal da ngay dab ba bi wala ndax dégg nañ sa mag tamit am nga mag boo xam ne mu ngi yëngu ci lii muy jiili. Mhm. nooy du ak loolu. waaw ah affaire bi de mbay jëm sa bopp la rek. Mhm. affaire bi moom man mhm. presque nit ñi dañoo bokk. dañoo bari ñoom bi bokkuñu. doomi aadama bu nekk. la yàlla ak lu la jox. jiili sama mag Yoff la nekk foofu lay liggéeyee. man boo fi nekkul la booy bi dama koy woo. Mhm. des fois damay voyage fa sori booy bi laay woo ne ko toogal defalal mhm. li defal li mu defal ñu mu def te bu defee balaa ñuy am trois jours kooku ne ma booy bi jàmbaar na waaw xëy na amaana loolu yàlla moo koy def si kër waaw xale jigéen ñi nekk si kër sax mhm. dañuy yóbbaale ak dara si dëkk bi man wax noppi affaire bi nekkul loo xam ne dañ koy foyee li ñu yor nii lu wóor la nekkul lañu dañuy lambatu man aussi itam am na lu yàlla def si man sëriñ yëpp dañoo bari léegi. dóor kat dañoo bari mënoo comparaan. Mm-hmm. mais amaana fu ñu eggoon yéen yi. Mm-hmm. wala bu ñu amoon. Mm-hmm. bu ñu amoon yéen i ndogal yi. waaw kon ñun presque dinañ def loo xam ne sax. nit ñi dinañ yéemu. mais lu bari suñu parents moo ñu koy tere. waaw lu bari lu bari bari moo ñu si dindi. boo tey tey tey di man xam naa xam naa ne moom dañ a yàqal client de ndax émission bi. waaw oh, garaaw ci la bokk. liggéey bi métti na de mbay ku la ko wax méttiwul da lay nax doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg. doo nelaw guddi yi dañ lay woo guddi nit ñi dañuy ñëw guddi. te yow doo toll ci moment parce que sa téléphone bi muy sonné nii doo toll ci moment yoo xam ne. doo ko ñemee fay. Hmm. doo ko ñemee fay ndax nit mun naa jóge fu ne. Hmm. daw si si guddi gi di la woo téléphone la jot. mais mais mais ñu dem ci wàllu làmb xam nga boo waxee sëriñ yi parce que ñu bëri ci dañuy yëngu ci wàllu làmb hmm. mais yow ndax côté boobu yaa ngi ciy yëngu ou pas. maa ngi ciy yëngu bu baax. moom Dibu presque ku xam ci lamu nga ma xamé dama doon boré da ngay samp ay mbeur damay samp ay mbeur mhm. bo tay tay tay di ni amna ay mbeur yo xamné ñu ngi leen di deug mais mhm. liggéey mbeur mom dafa metti waaw dama dem sa xam di ma reer mhm. faratalu ma ko essay ndax amul lolou ma ci man bok yàgg naa di ñaanal ay mbër façon mbeur bu nek xam nga ci dara ñew na fi mais do ci am li nga bëgg dañuy wor mbeur yi dañuy wor wor bu bon sax comme man amaguma ci sens man man sama bopp laa xam mhm. maguma ci sens. Mhm. a ah, loolu de erreur la su fekkee dañuy war de loolu erreur la. dañuy war mhm. mais daal mais daal yaa ngi ciy yëngu ba léegi. ba léegi damay damay si yëngu ah, am na ay parce que mbëri tamit dañuy soxla seen genre yi. comme que ci ci loolu la ci loolu la ñuy yëngu yow nga yëngu ci loolu. ku fi ñëw lay wax lu ah. leer rek de liggéey yàlla nga dem. dégg maa ngi yëngu yàlla may na ma ko. ok loolu boole moom mun naa ko. mais léegi Ibou ñu ñëwaat ci wàllu tul yi Mhm. yow risque yi comme par exemple risque yi ngay jël. Mhm. di tirer nit fital wala risque yi ngay jël di jam nit paga mhm. loolu ban sañ-sañ mo la ci dugal en général. <laughs> bay lolu da nek lu wor rek. xam nga doomi adam da ngay nek da ngay liggéey ci ben ben affaire. di ko dute. waaw di xalat lima li ma li moko ko li dama fekk. man nak duma sar yoy man buma ma djublu ci ben bir man loolu dama koy sangor daan aussi ku fi ñew dama lay ne am na ñoo ne dañoo ragal. parce que am na ñoo xam ne dañu wax ne par exemple la defalee tul tul bi du dugg Dakar buy passé jam ñaa joxamoo fan. am na ay vidéo bu duggee bu duggee Dakar day toj. am na bara pare. waaw danga ko jox nga dugal ko. Mhm. ñoo xam ne nit ñi ñoo ma envoyé ak seen audio. waaw nga dugal audio yi dugal lépp ñi ñu xam ñoo xam ne ñoo ma ñoo ma envoyé. nga xam ne jëlee nañ fii tul yëpp ko ko dul Dakar waaw essayé. tul mu ngi dem mu ngi kii waaw xam ne dañoo dem essayé envoyé ma vidéo yi. ok yor naa leen man moom loolu moom du sama problème boo ñëmewul dama lay boo demee nga vidéo du ñoo xam ne dañuy dama leen defal ñu leen ñu yey kaas. Mhm. du tullu fetal du tullu paaga du tullu jaas. di yey kaas wala nga jël butéel di ko naanee ci taat bi taat loolu yëpp kéemaan la nga xam ne def nañ ko. Mhm. mais amaana artisan yu bari yoo xam ne dañ ko war a def. Mhm. loolu di ci jot bu exemple maanaam ki nga xam ne dafa bëgg avancer ci liggéeyam wala ki nekk ci ay waaw loolu dañ ci yëngu. affaire liggéey moom. dama ci sawar a a sax wax. nga tëju. ba jaaxle ñëw fii. Mhm. kiro bi ngay buuse ci kër gi loolu ci ci lay dañ. nga tëju ba jaaxle. boo jaaxle. Mhm. boo fi ñëwee mhm. dama lay wax dencal sa xaalis wala loo am tegal fii. nga dem boo gisee nag bañ a loolu yow la. xam nga nit boo ko liggéeyalee. bu gisee a kulli alin bu dee nit la dina ñëwaat yow force la. force waaw bu dee nit la waaw. ndax dina leneen leneen. te dina gis koo xam ne. soxla na ko. soxla na ko waaw surtout. gis nga liggéey mbay mooy jaay boppam ak liggéey bu mu dool boo setee loxo. Mhm. fonk nit ñi jox leen cër. Mhm. ak yar ak tegin. Mhm. lu mun nga ko ci am. dëggantaan man mbay yàgguma ci affaire sëriñ de. te yaakaar naa ma ñëw ma ci doomi aadama aussi nag. ñëw doomi aadama bi dund. ñëw ma ko ci affaire aussi mais yàgguma ci. ñaari at laa ci am. mais wax de façon teraanga am naa ko ci. lan mu ma ko yar lan moo ma ko may yar ak tegin. ak sutura mais nit ñi ñëw fii nga ne diw ñëwoon na ci man di wala di. lima gana gën a contre nag mooy sëriñ li def légui di faj nit. Mhm. di vidéo. Mhm. lolu amul njëriñ. comme sëriñ ñu TikTok yi ñuy. ñuy vidéo lolu yépp man ko ndu ko def sama hmm ke do ko ndu ko def sama mbokk. ok wala sëriñ yi wax ci walu politique bi wala. wala walu bëre yi wala wala des fois nga dégg nit mu né waw dëkk bi li dina am dëkk bi li wala combat bi li par ci par ça. andu ka nak mbay lolu amul domi adam bu mako dakk ñu fanaanoo rek ñu ñu xew ñu wax lu xew suba. Mhm. parce que suñu tuuba amul ku ma ko dàq. Mhm. suñu waa kër rek ngi nii. Mhm. xam nga li am solo. sa mbokk sa mbokk sa mbokk yi na la gëm rek. balaa nit ñi di la gëm da fexe dëkk bi nga ne ñu gëm. waaw ñu nga dëkkal Jilaas yàgg naa di yeewu ne dara dina fexe te day am. est que yàgg na fi. du benn fan du ñaari fan. am na kom comme ba Sa Thiès rek bu mu jeexee bu mu commencé. bu damaa fanaanu dama ko gis bu mu leer nag mën na leen lii dina xew lii dina xew loolu moom waxoon nga ma sax noonu la amee mhm. ak yeneen yeneen yeneen loo xam ne dañ koy gis si dëkk bi mhm. mais aduna dafa jarul yéen yi mhm. yow daal boo yeewoo boo gisee wool sa njaboot wooy sa waa kër ne leen lii dina am waaw man noonu laay def wala su fekkee ki nga ko gisal xam nga ko nga jël moom wala a ne ah defal lii defal lii te bu ma ko bu ma leen waxee loolu day am gër trop waaw loolu moom mooy yàlla la ci man mais est que doo jël client yi wala déedéet ah, ah. ok ma maanaam daal ñi ñi ñiy wax ci sëriñ ñiy wax ci réseaux sociaux yi. comme di faj ni di ko woone yooyu yëpp nga gis ne daal. lu jaadu pour man jaru ko. Mhm. ndax nit. Mhm. bu jógee dëkk ak dëkk ñëw ci yow. Mhm. xamoo ban ban coono la ci daj. xamoo aussi ñaata la yor ci xaalis. xamoo aussi mbir mi fu mu toll ci moom. mu am naqar. benn mooy ki ngay faj. ñaar mooy ngay vidéo di publier ñun ñëpp di ko gis. man mosuma ko nangu. Hmm. sama client sax bu amee yor nga téléphone dama la tegal fee sa téléphone ñu toog toog ñu waxtaan kenn du ma vidéo ci li may liggéey wala ay audio yoo du ma ko nangu. ok dañuy wax li ñuy wax fii ma defal la nga dem. très bien mais di vidéo nit ki mu feebar lu ne man façon façon nit bu ne faj naa ko fi. Hmm. te kenn xamu ci dara. loolu max maak yàlla la. te mbay fii àdduna la loo fi def yomal xiyaam day leer. fii du dara ñun ñëpp dañuy dañuy dégg ñun man mi xaw ma tus. Hmm. dara laa xamul. Mm-hmm. yàlla moo yor lépp. Mm-hmm. yàlla nag yàlla nag mooy soob nit mm-hmm. def ko li muy li mu koy def. exactement waaw. ku ku ku lay xeex wala muy def ni da ngay rek. ñu daanalee mooy. wax nga ñu sa bopp. wax nga ci sa bopp sax la ñuy wax. léegi boo amee looy dénkaane comme que yéen ay porteurs de voix parce que kilifa du tuuti. am waa waa dëkk bi am na fu ñu la placé. wala adduna bi sax ñi ñëw ci yow tamit am na wala kuy déggu sa am na fu la placé. ban kaddu ngay yobante waaw ci lo xamne peut-être nit mën nako deg mu jëriñ ko. Hmm. waaw Mbaye côté ba bo ci waxee. Hmm. dina ci wax lo xamne wax deg sama xamam xam la. Hmm. aussi ko ki def koo ku ko def. di ko jëriñoo. ndax jamono bi ñu léegi dafa nek jamono bo xamne dafa doy waar. nekk jamono bo xamne ken wolotul ken waaw mais boo nekkee ci dëkk. am nga ni nga wara doxé am nga ni nga wara yoré sa bop muy wàllu musique muy wàllu leneen lépp daal muy ci yar ci tegin. yar tegin. mooy lépp ci doomi aadama man de lu ku may ku may gis aussi ci loolu laay dox ku ma àndal aussi ci lool loolu laa lay conseillé ndax boo ko amut mënoo am dara nit ki boo yaroo jox nit ñi respect am tegin mun dara jëmu la ci àdduna bu dee wàllu loo xam ne moom dama koy may nit ñi mhm. ci loo dinaa ci maye loo xam ne ku ko def mhm. ak koo mënti doon di nga ko jëriñoo mhm. muy garab bi ñuy wax poftan. garab poftan waaw. garabu poftan. Mhm. boo nekkee xale bu góor. Mhm. nekk ci dëkk bi. dangay ngay bàyyi ba guddi. jouru lundi. nga sumee ko ba set dem gas ko. da ngay ko nag comme nu la juree. nga gas ba mu xoot nga jël nga dagg reen bi. boo ñëwee. dangay ngay lakk cat bi lakk cat bale. ok ko sa ndigg doomu aadama buy dund ci kaw su mënu ci yow dara. loolu kessa day naw na mbo incha allah boo ko takkee doomi aadama bu dul si munu ci yow dara moom mun naa ko may xalé yi. ok merci beaucoup hein jere jeuf May. ay bu buñu jógee ci ndanan bi nak Ibou day ñu ñew ci ay andandom ki di Ousmane wa le grand ouz wa wa mun nga ñu wax euh, tout ci Ibou Khady ci walu témoignage comme que yene ay and fu ñu gis Ibou Khady gis nañ la fa. wa lolu amna <laughs> ah Ibou de sama rakla sama ref sama xarit la. Mhm. aussi lu mu def nii mhm. lu mu la wax mhm. eh, xamal ne mun na ko mhm. parce que moom waaw dégg naa nga laaj ko affaire fetel bi waaw affaire fetel bi loolu assurance la ci moom parce que man seeti naa loolu gis naa ko waaw parce que bu la defaree du la wax ne demal du la wax ne kaay ñu nga gis nga door a bu dee jaasi bi wala paaka bi loolu moom kenn waxatu ko boo woowee rakam sax mun na la garantie ci loolu loolu de seede naa ko liggéeyam moom wóolu naa ko ci lu muy yëngu parce que lu muy yëngu it aussi danga ko assuré te moom mun na ko lu mu munu moom dina la wax ne vraiment munuma ko loolu moom xam naa ko ci loolu ci moom mhm. bu dee affaire ku bugg soxna waaw loolu moom assurance la moom aussi mm-hmm. loolu seede naa ko loolu moom mun na mun na ko trop trop trop mun na ko mm-hmm. affaire feebar aussi mm-hmm. mun na gis naa mu faj fii ay dof ok gis naa koo xam ne daa jóge bëgguma wax dëkk bi léegi ñëw léegi